bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziar te di leen bal xaq te di leen balu xaq ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jégal bi jaaxil mam doxi sallallahu taala alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi borom ëtt bi ñu nekk Cheikh Mouhamadou Mourtada Dieng ibnu Cheikh Balla Fally di ko ñaanal suñu borom bi yàggal ko lool te may ko ak wér ñu ngi ñaan suñu borom bi sàmm ko te aar ko te yàggal ko fi lool te wéral ko te wéralal ko ñi ko wër bi jaaxil mam dooyi sallallahu taala alayhi wa sallam di siyaare mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi siyaare sëriñ Cheikh Balla ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Balla Fally di siyaare mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo teewe ci jataay bi ñu ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Bachir ñu ngi koy siyaar baax te di ko ñaanal suñu borom bi dëgëral ko te yàggal ko siyaare sëriñ Abdou Khadir Baye Jili Dieng ñu ngi koy nuyu baax te di ko siyaar di ko jox wàccuwaayam di siyaare sëriñ Khadim ak mboolem njabootu sëriñ Balla Fall gi nga xam ne ñoo teew di siyaare Baye Cheikh Kunta euh, jëwriñ moom itam mi ngi nii teew ci jataay bi ak Serigne Bàcc ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi su ngeen gisee jataay bi dangeen xam ne mbir mi daan xew ci xew-xew bu mag bi nga xam ne mooy bisu Seexul Xadim bi ek nañ ca muy ndigal li nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xadimal Moustapha joxoon na ko sëriñ Balla Fall tam doon ndigal loo xam ne naka kendi ndigalul seigne touba fu ko mas fek fekk nako bakanam mu songon ndigal li ci ba sëriñ bi joxe ndigal li ba fi ñu tollu foofa nak fa lañu eggati mu dajale lam baxo dajale ci ay gatt di ko jébal ki fi nekkal sëriñ touba Cheikh mohammed Moutala Dieng mi ko fi nekkal di ko taxaw kon ñu baxu bëgg ci ànd ak sëriñ jeng Dieng Cheikh Moudou jeng Balla fali di ko ñaanal sun borom bi leral aw te dolli ko xam-xam te yagal ko lol te may ko ak barke Cheikhul khadim kon sëriñ Xaadim rek dañuy ñëw ci jataay bii li ko waral xam naa sëriñ Balla fun ci dikkoon ak yow danga ca mën a indi ay leeral ci mbooleem li mu seq ak seexul xaddim ci ay jataay li mu seq ak ci ay ndigal li mu seq ak seexul xaddim ci bàyyee ko boppam te xëccuwu ca dara waaye gannaaw ba temps bi dafa xat dañ ciy jël rek benn muy ndigal lii nga xam ne mooy ndigalul màggaluk 18 safar nan la Serigne Balla joxe won jote won digal li ci Cheikhul Khadim Serigne Balla fali num mu jote woon ndigal li ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al Mustafa Serigne Khadim bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayyidina wa mawlana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahaabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barab bi ñu bokkal sëriñ cheikhuna cheikh alxadim ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen jégguloo ko baalu xaq te di leen dogal ngànt bu baax jiital ci siyaar yi nuyoo ni ko murid yëpp baaxoo defee mooy xalifatul am cheikh mouhamadunil muntaka di ñaan sunu borom mu yokk gudd aw guddal aw fanam te yokk ko wér banaal yi doo ak yi doorul yëpp mu def ci lu kawe njortam te ñu ànd ko moom waaye tam ñuy ñaanal ak siyaara bu baax ak a nuyu borom ëtt bi ñu toog tey mu toogee jotaay cheikhana cheikh Balla Fally muy cheikh Mouhamadul Mourtada noo koy ñaanal fanu gudd lool suñu borom defal ko wér ak katan gog biir gog biti banal yep ya magam ya doron, ak yoy ya bopam yi door ak yi tambale yëpp ya yep yalla ko suñu borom defal ak akuk fekke ko tal akuk wér am def ci lu kawe njort yep te and ko mom moom dajé ci ngërëmul sëriñ bi di siara njabootu sëñ Balla gep te buñ ci tuddé sëriñ mam Balla ni jëwriñ dana yóbbaale ñu bari waaye jataay bi itam buñ ci tuddee ko mel ne Cheikh Mouhamadul Moustapha al Bachir moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Dieng ibnu Cheikh Balla tudd ci Cheikh Abdoul Khader Dieng ak Serigne Cheikh Dieng danañ yóbbaale ñëpp waaye bu dee ci dëkk bi it buñ tuddee ko mel ne Serigne Salihu moom Cheikh Abdoul Karim moom itam duñ ko fàtte moom mi féete fii ci wàllu Touba gi ñoo koy siyaare bu baax a baax di siyaare mbooleem njabootu Serigne Balla gépp ñi ciy góor ñi ciy jigéen bu ñu tuddee soxna May Munatu Jeng soxna Ami danañ yóbbaale ñëpp. di siyaare bu baax a baax mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi ak mboolem foo xam ne kàddu gaa ngi fay yegg rek ñoo leen di siyaar te di leen baalu xaq te di ko tegee ci loxo Serigne Mouhamadou Silla mi ak Serigne Massamba Sall dana yóbbaale mbooleem taalibe yëpp teg nañ ko ci seenu siyaar ak seenu nuyoo ñoo ngi koy teg seen loxo ñoom ñu teewe jataay bi. waaye naka noonu lañu ñu siyaare itam Baye Cheikh Kounta mi loo xam sëriñ bi ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax di jégglu ñëpp tey baalu xaq ñëpp tey siyaare mboolem groupe boo xam ne rek wax jii ma nga fay yegg ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax bu ñu tuddee fédération dana yóbbaale ñëpp tudd ci ahlu tarbiya ak bu ko defee mu yóbbaale yeneen kuréel yi ci des yëpp rek ñu leen di siyaare bu baax a baax di tuubaka jégglu nag bu baax ci kàddu yi xam naa alluwa ji gàtt na moom te sew te làmmiñ wetam ñàkk fasaaxa lool balaa xa waxi noppi kon lu ci dëng rek nañ nu ko jéggal ngir dal di kàddu yu ndigal rek moo tax ñu koy jëfe waaye du am am du man-man itam du xam-xam bu fi nekk itam bañ war koo def waaye comme sëriñ Mouhamadou Sylla bu ñu la siyaare bu baax ginnaaw bi ñu la delloo siyaar boog dikk ci laaj bi nga wax ne ndigal li nga xam ne cheikh cheikhuna suñu yaakaar tey ëllëg muy cheikh al joxoon na ko suñu yaakaar ja Cheikh Balla Faly Dieng nga dikk ci ne naka la demee woon mu mel ne wax ji bari na lool ci jamono ci saaroo lool itam waaye ndigal la nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi joxoon sëñ la mënees na koo gis ci ay xeeti anam yoo xam ne ñëw na ci ay xeeti anam yu wuute lool te benn bu nekk itam am cëslaay yooye mënees na cee tudd benn version ba ñaar ba ñett boo demee ci yi nga xam ne yi ci gën a siiw bokk na ci bi nga xamee ne eh, sëñ la lañ koy nettali tamit lu bari lool te ci mujjit mujjig jamono yi sëñ Mat Jaw paxaatam ñu am ci lu ko firndeel mooy bi mu ne la sëriñ moom moo daa wax ne man man sëñ Mat Jaw paxaa ndigal li ku koy dégg maa ko gën a dégg ndax naa ko ñetti yoon suñ mag bi yónni na ma ko ci Baye la ma ànd ak moom ñëw mu waxaat ko ko ma dégg ginnaaw bi Baye Balla waxal ma ko ma dégg lam ko yónni woon mooy da ko mom moom sëñ Mat wax ko ndigal li nim ci bëgg ci bis bi nga xamne moy 18 safar 1918 ci wéru safar jam tambali won ci 1900 1895 gam génne won ci mbacké Bari bis ba yalla dogal mu don bis bo xamne bu sa bu ma sa delu ci ndax sunu borom mom da am lu mi mayé ci ngëneelam am lo xamne da koy jaay bis ba nak mu ko daan mu jaayante woon ceeg borom mom Cheikhana Cheikh al Khadim saa bis bi masa dellu si suñu borom ful nattu yi nga xam ne moom la ko doon jaayee la mu bëggoon ci marchandise di ko def di ko def nag ba jenn jamono bis bi ñëw muy taaxirlu ak a teewlu ak a taataan nattu yooyu nga xam ne day dellu si at mu jot suñu borom ful ko tegaat ko ko bis ñëw suñu borom ne ko nattu yëpp jeex na fi ne nag ak santa fi des kon mboolem nattu yeñ la daan defal saa bu dellu see ñu koy dellu siwaat di ko ful fi ne soppi nañ ko mu doon ay xéewal ak i nga xam ne ak iid rek moo la dese ba ila yawmi diin mu ne nag kon sant moo ci war waaye tam mu nekk ca jiitu ca di ko defal boppam waaye moom mu xool diggam ak li ko borom def boromam defal ci ay may te lii ñu gis ci àdduna mi ngi mel ne rek bool bu fees ba tuuru waaye la ca bool ba lépp ma nga ëllëg mu ne nag loolu moom sant ca war te mu xeeb ci boppam lool jëmmi boppam ji taxoon mu woote ne mbooleem koo xam ne sa mbég sama sama mbég sa mbég la na nga ñëw santale ma suñu borom muy benn bis boo xam ne ci àdduna boo doon wër àddu walla wala ngaan wala àdduna wëngal këpp moom rek lañu gis ca la dale ca min la dun aadam ba illaa ilaa yawmina hada moom dong lañ gis mu mas a woote bisub sant te mu àgg fi mu àgg itam bis booba nag ba nga xamee ne def na ko ba li ñuy wax ci histoire donte suwaar moom wuute mën na ci bari ca 1922 am ñu wax itam 21 waaye ci la woon suñ mot jaw paxal yónni ko ci Baye la wax ko ne ko damaa bëgg bis bii mu jotalul ko fere yi saa bu dellu seetee nañ ma ko defal ma doon bisub sant képp koo xam ne sama mbég sama mbég sa mbég la nañ ma ko sañ ma ci santale boroomam suñu sama borom tàmbalee ko di ci bernde ak jàng alquran salaatu ala nabi istighfar mboolem xeetu birru yi rek lu baax nañ ko ci def ak zikar yi nee nag yéemu ci li dala ci ginaar xeebu ci li dala ci ginaar waaye yéemu ci giléem itam sëñ ma jaw faxa muy sultaanul aarifin doono leen tam ci njëlbeen maliku nuxaat ba mu demee ba ci sëñ Balla au lieu que mu jaar fa sëriñ ba jaaroon ndax nee na day bañ ci wàññi benn xaraf baa mu ko ci yokk tax mu woo sëñ Balla ñu àndaat dem ba ci kanam sëriñ bi sëriñ bi waxalaat ko sëñ Balla noonee ne ko damaa bëgg nga jotalal ma fere yëpp saa bu bis bii dellu seete nañ ma ci sant la sama boroom ngir kat bis boobu kan mooy bis bi nga xam ne moo ñu tee nasraanu moo ñu tàqalee tam sawraw àdduna ko moo ñu defal texe mu wax ko sëñ Balla ne ko nañ mako jotalul fere yep kep ko xamne sa mbég sama mbég la bu bis bi delu seete nañ ma sante le sama borom ci mbolem xéti yi nga xamne rek suñu borom gërëm na ko ko ci defal tambalé ko ci alquran jaar salatu ala nabi khasaidi azgari muy xasbalaak yéen demé bam ko ko waxé tam bo démé ci téléb Cheikh mohammedul bashir bi ñu tuddee minanul baaxul minanul baaxil khadim moom wax na ce ne am na ci màggal googu bi ko sëriñ bi waxee sëñ Balla yëkkati na juróom ñetti yëkkati na ñetti téeméeri ngurdu jox ko sëñ Balla ne ko nañ ci wut ceeb ak diw yëkkatiwaat yeneen ñetti téeméeri ngurdu jox ko ne ko nañ ci wut café ak suukar nga xam ne moom la def njaarim def wut ca loolee ko sëriñ bi wutloo te saare ko ca fere yëpp ngir ñu sant la ci boromam. boobu benn version la looloo tax sax sëñ Met Jaw Paxa doon wax kon ne moom ku koy dégg moo la ko gën a dégg ndax ñett yooyu yëpp dégg na ko ci yónni nañ ko ci moom mu àndaat ak sëñ la ñëw sëriñ bi waxaatal ko boppam ginnaaw ba sëñ Balla wax ko ko ndax dañ ne bi ko sëriñ bi waxee sëñ Balla ba noppi di jóg di dem sëñ Met Jaw Paxa ngaa tey ci mbub mi ne ko danga ma koy wax ndax man ci fere yi laa te yow la yow la ko wax loo sëriñ la ngir fonk ndigalul Seexul Xadim tax mu yegg suuf jaar fa ko sëriñ ba jaaroon moom itam sëñ Met Jaw Paxa looloo tax ñu wax ne sëñ Met Jaw Paxa mu màggalam gi mujj bam mu rendee ba ca ma mujj jël na mu xar rendi ko ne ma rendil ko sëñ Balla Baye Balla mi nga xam ne moo ñu jotaloon ndigal lii loola nag damay wax ne warees nañ caa def entre parenthèse muy bay na xaw say ni ñun ñëpp ñu def ci ab seetlu moo ne mbooleem kuy ab taalibe di murit rek waroon ngaa rendil wala wut ab gàtt joxel ko sëñ Balla ngir njukkale ko ko noonee ko sëriñ Mat Jaw Paxa njukkale loolee loolu moom waroon na ci mbooleem kuy ab murit rek ngir defal ko sëñ Balla ci ndigal li nga xam ne jottali nañ ko ba tey mu yegg fii boobu benn version la ca am na ci beneen boo xam ne dañuy wax ne sëñ Modou Dieng mi nga xam ne moo fi toogoon ab jataayam yàlla suñu borom yokki leeram te taasuñ ci barkeem moom moom nettali na ko yoon ma dégg muy wax ne moom Baye Cheikh Fall Xattaaba moo ko ko wax ne ko am na ci màggal goo xam ne man mii waxtu fajar la sëriñ bi ñëw ba tolloog permis ndax maa xaa maa aay woon xambu sëriñ bi ci biir kër gi ci njaareem daa moon taal bu fa nekkoon taal ba mbattum njalabaan lañ ci daan xamb te bis bu set daa am ku koy aaye ci ñi koy xamb ci fere yi nee bis boobee man la fekk ma aayoon xamb mu fëgg ci perum sàkket bi ne ku ne fii ma ne ko mën a seex faal xatta ba mu ne ma mu ne ko demal wool ma sa baay la mu dem wool ko ko mu ñëw mu joxaat ko ndigalul màggal gi ak ne ko nag ko siiwalal yëgalal ko ko mboolem fere yi ñu ku mbégam doon doon sa mbég rek nga santale ko ci boroomam nee na bis boobu ba mu ko koy wax daa daa ñëw njaarim ne ko sëñ Abdou laa doon seet mu ne ko sëñ Abdou boobu fekk mu génn mu ne ko ndegam gis naa la baax na dama leen a bëgg a wax ni màggal gi ni ngeen demee ak màggal gi xam leen ne sëriñ sëriñ bu mag bi ci yéen la ko njëkk wax te yéen la ko jottaliloo képp ku koy dégg ci yéen la ko déggee sëñ Modou nee na Baye Cheikh Fall Xattaab ba moo ko nettalil boppam te bokkoon ci jàngkati sëriñ bi ci njaarim boobu kon booba tam wér na ci kée ngi ne moom moo ko ko wax moom mu doon digal loo xam ne lu mën a teg baaraam la boo demee tam ci téere boo xam ne Serigne Moustapha Lo mu xam ko ci moom Serigne Ndaam Abdourahman Lo mi borom xam-xam bu yaatu boo xam ne bokkoon na sax ci waa bokk bokk na ci ñu njëkk a topp yi sëriñ bi biñ ko génnee ci réew yi ci bitti ba defoon na ci kaset yu yaatu def na ab téere bu mu tudd Azikra Azikra al Miawiya da cay wax ne bis bii Serigne Ball lañ ko ba muy firndeel ne Serigne Ball la ko sëñ mag bi njëkk a jox. àgg na ci sax di wax ne moom ay jamono bi nga xamee ne toll nañ ci jamonoy ràmm ak rafle ak ak ràgg nee na mbooleem fere yi bàyyi woon nañ ko ba mujjoon ñoom ñëpp ñu wéeru ci sëñ Balla taan ko tuddee bisub sëñ Balla bi màggaluk sëñ Balla ga nee na kon nga xam ne moom dong moo ca desoon ngir ndigal la ko suñ sëriñ bi joxoon mu nekkoon ca ba ñëpp tudde woon ko loolee sëriñ bi nag di doxal loolu moom sëñ Balla ba bi nga xamee ne am na ci màggal go am gàtt bam ci njëkk a moo ci njëkk a am xar muy ab gàtt ci taalube sëriñ bi dañuy wax nag ne sëriñ bee ko njëkk a màggalal boppam am na ci yeneen xissa yoo xam ne moom loola moom mooy li wér waaye bu dee ci taalube yi sëriñ bi moom sëñ Balla moo ci njëkk a rendil sëriñ bi ab gàtt xar moomee mi ngi ko tudde sëñ mut jigal ndax dañ koo jàppoon ay dañoo jàppante woon doomi bàjj nag doomi nijaay ca la ko màggale woon rendi woon xar moomee ngir màggale ko sëriñ bi ci sañ bii sëñ mut jigal bokkoon ci sëñ mut jigal bokkoon ci seexi sëriñ bi wax nañu sax ginnaaw sëriñ bi mooy seex bi ko njëkk fekk ca barsàq moom sëñ mat jigal loolu manees na ko caa jàppe moom itam muy loo xam ne lu wér la lool bu dee nag ci njabootu sëriñ bi moom dañuy wax ne sëriñ Saalix mooy ki ko ci njëkk a rendi la am nañu wax loolu tam ci histoire donte nag moom a taarix moom lay set kama kaanat comme ni ko gars yi di waxee rek ñu jàng waaye kon loolu manees na ko ci dégge ci ne moom sëriñ bi moom màggal gi moom amu ci sikki sàkk ne moom la ko sëriñ bi njëkk wax loo ci fere yi ngir mu jottalul ko mboolem taalibe yi donte ginnaaw bi nag am na yeneen yi ci xew waaye yooyu yëpp moom dagam jataay bi laaju ko ñu déggaat feneen tam tamit version yoo xam ne ne ci nit ñi amee ay adila ay tegtal noonu lañ ko ci amee ñun itam waaye lii sëriñ bi nekkoon moom bu dee ci ndigalul màggal gi moom yii mënees na ko cee tudd muy yoo xam ne bu sëñ ma jaw paxa bi nan nga ko cee dégg boo demee ci minanul baaxil xadim Cheikh Mahamadul Bachir da nga ko fa fekk boo demee ci téereb sëñ Moustapha Lo ba fekk ko ci doomi sëñ Balla tam nett li ko ñu dégg te ko ko nett li bokkoon ci bëkki néegi sëriñ bi nettalil ko boppam te ñoom la sëñ Moussa Ka wax rek moo ñu ko xibaar te duñ ko duurar ku yabu gëm baa nga weddi ku yabu buural nam ko daal kii aw kama xala <laughs> radiyallahu anhu kon loolu mën na sa koo jàppe ci ndigalu sëriñ bi màggal gi nga xam ne mooy 18 safar sëriñ bi nag kemtaan gi ci feeñ ay jamonoon mettiwaay geeg wala niñ ko njëkkoon def nga xam ci njaarim li woon kenn ku nekk da daan da nga ko sa kër rek togg say bernde tàngal say café génn ci ëtt bi ne sëñ Moodu doon tudd léegi am na ci màggal gu doon nañu nettali ne am na ci màggal goo xam ne nee na biñ ko defee ba noppi kenn ku nekk dem sa kër waajal la waajal ci xeeti bernde nee na daa kele bi ñu koy nettali daane damaa xamatul ndax sëñ ma sëñ ma ndumbe moo njëkk sëñ ma ndumbe moo njëkk noppi wala sëñ Issa Dieng daa noppi na sëñ Malick Ndiaye yëgalal fere yi ne képp koo xam ne aajo woo ngaa xéwlu mën ngaa ñëw nee bi ko sëriñ bu mag bi déggee dane ko du noonu nee na daa di woo sëñ Malick Ndiaye ne ko neel ñëpp képp ku noppi na ma ko indil fii ci kees gi ci njaareem nee ca la mag ña dajalee togg yi kër gi ñëpp indi ko ca kees ga ba yëpp dajee nag ci la sëriñ bi wax sëñ Malick Ndiaye ne ko kon léegi wooteel képp ku nekk képp ku woon na nga ñëw xéewlu te ku nekk nga xool fa la soob nga sukk fa loola nag xam naa mooy li waral tey jii xeeti yi nga xam ne moom la jaañeen yi bëgg moom mu mu faram-fàccee wu ni mu baree nii wala junj googu la ci doon doon kon loolu daal ci gàttal ndegam waxtu yi bëgguñ mu gudd lool manes koo tënk muy loo xam ne moom ku ko weddi moom far bind baa nga weddi waxi mag rek loolu mooy li wér moom ci ndigal li kon sëñ Modou manees naa taxaw ni foofu ba xam ne amaatool dara looy laaj. jërëjëf sëñ Xaadim jërëjëf leeral yi am na solo lool te leer na manees na cee déggee it lu baree baree bari fàttali ko ci it bu baax a baax day fàttale it na rek ni ko waxee mbooleem yi ci rot yu wér la waaye màggal gi day wane ne sëriñ bi da koo defut benn yoon defu ko ñaari yoon lu mu néew néew. juróom benni at taxawul na ko boppam ndax su fekkee ne bàyyi nañ xel waxi sëñ Moussa Ka ji daa waxoon ne njaareem la njëkk a màggale cattal sa sin la àggale fii la ñu bàmba jombale jaaraama ahmadul mbakki ginnaaw ba talsas la nag boo xoolee talsas ba wam sas da ngay xam ne kon def na fi ab diir di ko defal boppam loolu nag mooy waral yii di am ndax ginnaaw ba màggal gii sax fii ñu nekk nii ci mbaar mii di fi màggale ci kër sëñ Balla Fall Euh, sëriñ mu xam nga ne at mu jot am na am na lu fiy xew loo xam ne bukkut ak lay xew ca at ma ca des jataay bii rek ni mu amee ren bukkut ak ni amee woon daaw kon loola mooy waral waaye mbooleem li rot rek li muy confirmé mooy ndigal li daal sëñ Balla Fall la ko sëñ bi jox ndax bu dee Baye Cheikh Fall Xataaba loolu la wax bu dee sëñ Ahmadou Diaw Paxa loolu la wax bu dee li jiitu it nga xam ne sëñ bee ko ci defal boppam laata gàtt di dee muy juróom-benn téeméer yooyu nga xam ne sëñ Moustapha Abdourahmane mu nga wax andi woon na ko sëñ Balla la ko jox waaw sëñ Moustapha Abdourahmane moo loolu loolu la wax kon kon kon liñ ci dëkk def sax cib xaalis sëñ Balla lañ ko jox ginnaaw bi it wax nañ ne bi ko sëñ Fallou di amee ndigal ci defal ko sëñ Touba ci dëkk bi sëñ Abdou Dieng Balla Fall la woo ne ko yaay jëwriñ ji kon loolu day confirmer na rek ne sëñ Balla Fall yi moo doon jëwriñu màggal gi loola tamit dafay wane ne xar mi ñu wax ne moo ko ci njëkk a xar yi ñu jàkkaar loolu ware na ko ndax booba ba léegi ci at mu njëkk ma ko suñ tubaa joxe ndigal ba léegi lii dëkku léegi nag moo taxul ma bëggoon rek sëñ xaadim nga ñëw rek ci ab tënk ngir waxtu bi dafa xaw a bi mu jotee ndigal li nag ci loolu di ko def ci kanam suñ tubaa ba suñ tubaa jóge fi di ko def moom ba jóge fi ak njabootam nañ ko doon defee ba nagani moom sëñ Balla nu mu defee ndigal li ba jóge fi bi mu fi jógee ak njabootam nuñ ko defee ba egsi fi Cheikh Mouhamadoul Mourtada mi fi nekk yàlla fi yàgg téwér bisimilah leeral yu am solo yi nga xam ne leeral nga ko suñu wax ju tënk ju ju ju jaxasoo ji nga ci sant bu baax a baax loolu nga wax rek la ñuy confirmer ne histoire moom noonu lay demee kon bu ñu tuddee sëñ Mat Jaw Paxa benn yoon tuddaat sëñ Seex Faal Fatala mën lii boo demoon ci li ñuy wax usulul fiqh bu ñuy méngale wax yi koy wax dañ koy méngale kon mën naa am at mee sëñ Mat Jaw Paxa woon sëñ Balla at mee ci des sëñ Seex Faal Xattaab loolu la gaa yi nga xam ne dañoo xalaat xereñ ci xam-xamu usul dañu jàngale li ñuy tudde taarut bu ñaar dajee dañ koy tase noonee waaye ndigal li moom ba ko sëriñ bi jotee mooy loolu ñu la wax mooy daan miraas ba set wi def ko ci bisam bii diirub nag bis ba mu ko jotee ba ilaa yawmina dellu ginnaaw ca loola la nekk moo ko njabootam ba biñ ko noppee gis diirub li mu ko ànd ak sëriñ bi tam ànd na ko moom fukki at ak juróom ndax booba xam nga ne bu dee 1922 boog moom dama bëgg a wax boog ànd na ko doon def ndax 1922 wala 21 ni ñu koy wax waye Serigne Balla mu ngi fi joge 1940 kon mom taxawé nako ko ci bopam lu mat diru fukki at ak juroom niko Serigne Moussa Ka ca ba kon lol non la waye ni ko dan defet moy dajale gatt ca allah ba ndax boba jamono meluton ni waye tam ñi eppon ci nit ñi ñi nga féete ca kaw ga ca allah ba fa lañ ko da dajale mu wut ay sam ñi sam jurgi ba ag ci jamono yi bis bi jupsi ñu jitalé ko min daru jeng jëm si Touba jaar noné ñi jaar ci ñom kokki gu yeeg ya ca des ca allah ba jaar milina ci lak yoyé am na bis sax dañuy wax ne bi sëriñ bi bi ñu jiitalee coggal gi jëm ak moom njaareem sëriñ bi biñ ñëwee dane da koo laaj sëñ Balla ne ko ndax da ngeen a jaar Mirina Silla mu ne ko waaw mu ne ko saa bu ngeen forombatee na ngeen jox sëñ Mirina Silla ab gàttam gàtt boobu muy wéy ba tey jii at mu jot waa kër sëñ Mirina dana ñëw fii jël sil ko seen bopp kon loola tam mu doon ay firnde yu wér kon ni ko sëñ Moussa Ka waxee woon rek jiitalu coggal jëmee ko Touba mu ànd ak ay diw ak saako ceeb ak maalin muy alal yooyu lépp la laa def boole ko ci bu ñëwee nag xar yi bu ñu dajaloo ba egsi jamono yi fi sëriñ bi nekkee mu jébbal ko borom Touba bi fi sëriñ bi làqoo ci zahir Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ne fi mu koy jébbal bu ko ko jébbalee moom mu xool ñi nga xam ne ñoo ko yelloo mu jox leen ko moom sëriñ la du ca yem dañuy wax ne dadaa wutaat ba tey ay nag def ko ray ko lewetlu lewetlu ko ba noppi def ko ay saam boole ko ceeb boo di ko jox dëkkandoo yi nga xam ne ñoo jege woon te xëy na xar yooyee egsi wala gàtt yooyee egsiwut ci ñoom yemu ci waaye dañ daa wax ne daan na sax àgg ci ndax booba jamono xamoon nañ ne jamono yi njëkk jan ndox manqué woon na lool moo loon yi ngay dégg taxoon nañ àggoon na ci di rawlu ay goj ngir ñuy rootal ñi nga xam ne dañoo bëgg a santale sëriñ bi boroomam ci bis bi ngir leen donga yi taalibe yi di wutal am ndox ngir bis boobee ñëpp yëg ne moom bisu xéewal la kon loolu moom nekkee woon na ci noonu moom lii firnde jee tam ci màggal àgg na ci màggal ba àgg ci joxe doomam mu doon gàttum màggal na ko Seydina Ibrahim defe woon ca Ismaayil mooy tër doomam ca Ismaayil ngir bëgg koo jaamoo suñu borom ci gént gëm géntoon suñu boroom ne ko rendil sa doom ji moom sëriñ be tam ay jamono la ñuy wax ne jébbal na sëriñ Moustapha sëriñ sëriñ Moustapha al Karim sëriñ Mouhamadul Moustapha bañ séddale ba noppi xam day mel ne ka doon xaw naa fàtte sëñ Abdoulaye borom dër bi ginnaaw ba moom itam muy ñëw di laaj si cëram laaj ko sëñ Balla sëñ Balla ne ko de ñun de dañ koo jébbaloon ki fi nekkal borom Tuubaa mi Cheikh Mouhamadul Moustapha te nag amaana ñam ko doon séddaliloo xëy na ñoom kon foofa la yëf ya xawee am kalkal te doomu aadama moom koo séddaloo mu sédd waaye mbàyyi sa waay ci la ko jëloon nag jox ko Cheikh Abdoul Karim mu doon mu taxawaay fa taxawaayu gàttu màggal kon loola mooy boo ko doon xiyaasaat ci diine rek da ngay delluwaat ci na Seydina Ibrahima defoon ci Ismaïl ngir jaamu ko boromam kon noone la fi nekke woon moom itam nekk ca nekk ca noone ba nga xamee ne suñ borom dogal na mu jóge fi ci zahir Cheikh Abdou sëñ Abdou Ndaam muy mi ko njëkk a wutu taxawaay ca moom itam sof foofe sëriñ la yamoon rek wéy ndax kër gi moom lu ñuy sos amut dañuy sof rek di wéy wax nañu sax ne wër gàtti màggal yi nga xam ne dañu ko daan wër ndogal di ko soññee bu weer wi teroo wala bu jubsee ngir di ko dajale taxoon na ne bi sëriñ Balla di wàcc liggéey ci zahir da ko fekke ca li digal loolee mu ne ca tund wa ca ndogal di dajale gàtti màggal yooyee ndax xam nga ne 29 muharram muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci la sëriñ Balla wuy ji boroomam ci zahir loola day tombeek bu fekkee ne weeroo feeñ bët set ji benn benn fan safar bu feeñut it ëllëg sa ñu la nee nañ loola taxoon fekkewutoon waay boobee kon xam ne kon loolu yàgg na moom itam ca noonee la nekkoon la way juróom wa ne woon rek mu nekk ca dara la mësta des mooy sof foofee rek way gàtt yi gën a bari ndax benn gàtt boobu jiw la waaye fi ne jur na ay téeméeri téeméer ba xëy na image yi sax da nga ko ci gis mbaar mais ak yi gannaaw yépp mu doon loo xam ne benn gàtt boobee suñ bal la njëkkoon a rey wala njëkkoon a lewetal ca màggal googee moo waral loole liggéey sëriñ bi nag moom wala yoonu sëriñ bi moom tànki kanam rek la yem noonee kon na ko sëñ du moom itam nekkoon ci gàttal rek taxawaay ko moom taxawaay bu mat sëkk mbooleem la ci sëñ Balla daa def muy wutaat ginnaaw bu jégg jéggalee ba noppi wutaat yeneen xeeti ay bernde muy ay nag ak yooyu di ko saam boole ko ki ceeb ak yooyu di ko joxewaat ne ko sëñ Balla daa defe ngeen ñëpp yëg seen bi bopp ci bis bi ni nga xamee ne sëriñ bi waxoon na ne bis bi de moom àjjana mu bis waaye sunu borom def na ca xéewal goo xam ne saa bu dellu see waa àjjana sax xam ne bis bi dellu si na loolaa tam sëñ Balla moom la daa bëgg di ko dundal ak njabootam nekkoon ca sëñ Abdou Ndaam bi mu ko fi wutal tam ca noonu nekkoon ba yàlla dogal moom tam mu jóge fi ci zahir Cheikh moom dañuy wax ne moom àggoon ne sax moom dañ ko daan tooñe sax jàpp ne daa naag ndax moom bu ma saa woore rek lay tàmbali moom di soññee ci gàtti màggal yi ba ñi nga xam ne dañ ko daan maame moom dañuy jàpp ne daa naag tax ñu koy wax nu fekk ne moom pas-pas ba ak pëstéef ba rek toll foofee wala boog romb na ko sax kon moom itam noonu la nekke woon ca moom moom mooy màggal ma bu ñu ko tuddee ndaxoon wax naa léegi ne moom ci boppam kër sëñ Abdoulaye borom dër gi bi mu nekkoon gàttu màggal la taxoon mu dem fa kon moom loole rek la ca doon doxee ci mu nekke ca noonee moom itam nekke ca noonee ba yàlla dogal mu jóge ci zahir lépp yokk lépp gën a murite gën a rafet gën a taaru ba yàlla dogal li mu dogal Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim wutu ko moom itam sof foofee mu yemoon rekk wéy muy gën di bari di gën a rafet di gën a taaru moom itam mu bokkoon ci ñi nga xam ne da daan takk ab ak laxasaayam dugg ci ndogal yéeg ay ab saleetam am ñetti fan yoo xam ne dana koy am ci àll bi di wër fu mu wër ba jant soo mu fanaan fa bu ëllëgee mu xëyaat yeggale di wër gàtt yi di ko dajale bi mu demee ba yàlla dogal mag gi ak télé gi jege ko muy ànd ak njabootam ku ci mel ne Cheikh Mahamadul Moustapha Sëriñ Maam Balla nekk ca noone di ko wër lu ko jiitu sax dañuy wax ne sëriñ Faama ak sëriñ Fallou Dieng ñoom itam sëriñ Abdou daan leen yabal léeg-léeg ñoom itam ñu ànd di ko wër ci tund woowee waaye sëriñ Modou tam nekk ca noone moom itam di takkuk laxasaayam di ko wër ba yàlla dogalee mu xaw a mage muy ànd ak njabootam di ko wër ba yàlla dogalee tële gi xaw koo njat njaboot gi fekk na booba wan leen yoon wi xamal leen fi ñu war a aw yëpp ak nàmpatal na leen ci mu leen di yabal te bis bu yablee sax buñ xasee dem day mel ne koo xam ne moom day xaw a tàggoog sagom ba ba ñuy ñëw fu mu toll day bàgg rek di laan ndax ñëwaguñ te balaa ñoo ñëw danañ fekk mu waajal leen loo xam ne moom ñiy sant jaan danañ ko mën a jëfandikoo lool te ànd ci ak mbégte moo xam ne tey loolu ñu koy jox bu wëree ba noppi bu dee xaalis la bu ñëwee sax du ko nangoo ber da du ko nangoo boole da koy ber ci ci barab lañ ko cay jox yeneen yi nga xam ne àggul ci gàtt ndax ndigam sëriñ bi dane woon li dalee ci ginaar ba ci giléem am na ci ñooñ seen kàttan ci ginaar la yem yi bu ñëwee sax du nangu bu fanaan ci dëkk ba daaru da koy yóbbu ci daara ju ñuy wax gent ngir mu fanaan fa da mu fanaane bu xëyee mu fexe fexe nu mu ñëwee Tuubaa mu jébbali ko ki fi nekkal sëriñ bi noonu itam moom mu nekk ci noonee ba yàlla dogal dogalam bi nga xam ne moom du jaas ci kenn ñëw Cheikh Mouhamadul Mourtada wutu ko ñu ñaan suñu borom dolli féq aw fanam te dolli ko wér ak kàttan moom itam mu yegg si liggéey bi gën a taaru gën a yokku gën a rafet ku gis gàtt yi xam ne ak yokkute am na ci lu baax a baax a baax ak ni ko taalibe yi defee kenn ku nekk rek nàmmaat sab ëllëer dëgëraat sa laxasaay gën a góor góorluwaat ngir tànki sëriñ bi yooyu nga xam ne sëriñ la amoon na ko ci njëlbee na mu doonoon benn ba tey mu doon ay téeméeri téeméer loolee moom ngir lan payuk sëriñ bi rek lañ ciy wut ak itam liggéeyal sëriñ la mu gën a rafet lool taalibe yi niñ ci jaayanteek niñ ci góor góorloo ren ji rawatina ci mu gën a taaru gën a rafet ñu baree bari liggéey ci liggéey bu am solo rawatina bu ñu ci tuddee ku mel ne ñu mel ne waa fédération liggéey nañ ci liggéey bu am solo doon def seen jaayante yoo xam ne ñi mënatub gàtt dañuy joxe lañ man ñu boole ko xëy na ñaar ak ñett buñ ko boolee mu mënub gàtt ñu boole ko jënd ko gàtt moo waral mu gën a taaru gën a rafet ñu leen ci sant njaboot gépp leen ci sant tey di ko rafetlu lool te di ci am mbégte tey ñaan suñu borom boole leen dool leen a dimbali ba fañ bëgg mu yegg fa suñu borom dimbali leen bañ def ci lu kawe seen jot ci barkeb sëriñ bi ñu ànd ko taalibe yépp taalibe yi nag continué noonu di ci ne ba tey jii moo waral gàtt yee nga gis ci mbaar mi muy loo xam ne dañ koy indil sëriñ bi saa bu ñëwee nag ba toll na mu war a toll sëriñ bi dana yónnee ci ki fi nekkal sëriñ bi boole ko ki addiye jébbal ko ko xamal ko ne lim ba ñëw na bu ko defee sëriñ bi joxe ci ndigalu ne nañ ko defee nañ ko daa defee mooy ñu topp ko kër doomi sëriñ tuubaay yi ak ñenn ci seex yi jox leen gàtt yooye ba noppi nag ñoom njaboot gi wala waa kër Sëñ Balla ñu soog a wëlbatiku ñoom xool ba xam nu ñuy def ba am loo xam ne danañ ko mën a def ci danañ ko mën a santale sëriñ bi ñoom itam ci berndeel ñi nga xam ne dañoo xaw a sant yenn sant yi mu doon loo xam ne kon leef daje lépp liggéey alali sëriñ bi la sañuñ cee def dara ñoom bu noppee tam dañ ko dem jébbali ki fi ne bu leen ko def loo nam ko daa def la ñu defee ko noonee bu desee ñu jëlaat lépp sëf ko ci oto yóbbulaat ko ko ñëw door a lijjanti nag seen bisum màggal comme ni ko ñëpp di defee ci Tuubaa kon loolu mooy liggéey boo xam ne moom du mas a dakk mukk day wéy te saa su ne tam muy yokku ndax yoonu suñu borom moom rawatina yoonu sëriñ bi moom dara du wàññiku kanam rek lay jëm xaar mu nekk muy gën a taaru di gën a rafet di gën a di gën a jekk te ku gis xar yi rek danga xam ne kon ndigal loole moom firnde la ci rek ndax damay wax ne moom bariwut nga gis dugg ci kër fekk fa ñuy dajale xari màggal fu dut fii fii de lañ ko xamee buñ ko xamoon feneen wax ko waaye fii lañ ko giseegul loolu kon firnde la ci ne moom sëriñ bi moom bis bi moom sëriñ bi moom la ko joxoon te it na ci jamono teyit ba mu waxoon na ci ay wax ne bis ba mu rayee gàtt boobee dane woon sëñ mat jigal la ko tudde neeñ ba mu ko defee noonu ba def koy saam dane xam naa ne de moom ku ko mas a fekke ji dana lool ndax mat jigal mi ma ci rey daa xumb ndax daa bari woon ku xorom yooyu la bëgg wax sëñ mat ne ko déedéet waxal gàtt bi waaye waxam joojee tey dellu si na def dëkk bi moom ñëpp xam nañ fi mu toll fi ne fi wax naan ci ay kër kenn ku ne këram la ko daa defee tey ñuy wax juróomi million lu teg di fa daje kon waxi sëñ Balla joojee dikk na kon daal sëñ Modou bis bi mu doon bis boo xam ne moom lu ci waaye def rek moom sëriñ bi denc la ko ndax sëriñ bi moom mënuñoo amuk payam bu doon ne ci àdduna rek xeetali gim xeetali jaam ñi ci mbindum ci dundinuk àdduna ak fi mu fekkoon réew mi xeetali googu donc doyoon na sëkk ñu ngi ko ci le ñu koy sant moom waaye nag moom yàlla dogal na woote wutuk cant ngir ñu sant ko daa woote ne ñu ànd santale ko boroomam ci may yi ko sunu borom defal ndax defal nako ci tukki bi nako seigne Moussa ka waxe ni kuko magal aj nga umra nga te am nga yol ba mu waxone tam ne tukki bi mo mate nasranu nasraanu tax itam kep ko aju ci man suñ borom defal na la texeeg àdduna goog alaxira te neewoon na tam tukki bi suñ borom len rek la ci nam moy defal man dara ja jo xamne kenn musuko am ci gaay yu bax yi waye defal ma tam ma don koy ram sama nit ak itam ku don liggey katub bi ali sallallahu alaihi ba am ni ko olof di waxe abadan daiman iman dafet iman dapet kon lolé mu don lo xamne mom lañu ñëwé di ko wax la waykat ba ne woon bu dul ko nag génnu sëriñ bi mu génnoon ca bisub gaaw ba min mbàkke baari jëm ndar ba niñ ko génnee ci réew mi bu dul ko nag demam boobee le konoon ñun ñi di xeetam wi ñooy bokk ñooy doon xeet wi gën a alku ci xeet yi waaye nag suñu borom musal nañu ci loolee ci mbaaxuk sëriñ beeg njàmbaram akuk xettali mu xettali jaam ni kon loola nag day wane ne rek sëriñ ba waxoon ne moom xustu xayaatan la tura li xeyri mujizatan banat li usni xeyri loola moom day wax rek ne moom suñ borom defal na ko dund goo xam ne ci moom lañ ko mas gisee la dalee la sëriñ ba waxoon ca si sixaar mooy ba mu ne amma jamihul anbiyaai wa rusul faqakadun min al ulufi ya rajul ne boo boolee ñi yàlla soloo jox leen xam-xamub ñi ak ñeneen ñi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xamub ba noppi yónni leen itam boo leen boolee ñu ngi toll ci faqakadun muy téeméeri junneeg ñaar fukk ne boo ko boolee noonu la ñu toll waaye nee nag ku mel ne sëriñ bi moom mës a feeñ ca la dale ca aadama ba ci isa te ginnaw betam ku melne mom du ma sa feña ba ila yawmi din kon lola dañ cey mën waxé ne rek mom nako sunu bolam waxé ci benen bindam ne rama rasulillahi min ilahi kauni ni wa abdullahi lol rek mo ci nek yàlla ci sunu yonenti bi ci bopam mo dem ci boromam sàkku ne moom da bëgg cheikhana cheikh al khadimi don ab katam di jëwrinam neena lolé mu sàkk ci agit suñu borom defal ko ko mu don jëwrinam motax mu ne allamani arrahmanu fi safina bi annani xadimu sil madina kon loolee sëñ Moodu ndegam waxtu wi dañuy bañ mu gudd te yaatu ndegam te ñu tënk te waxtu wi jege na manes na ko cee jële daal xam ne daal kon ndigal li moom wala ko waral sëñ Balla tam ci gàttal noonee la ko daa defee ak njabootam ànd ko moom noonee bi mu fi jógee tam ñoom ku fi toogee tam da ngay sof rek doo sos dara loola muy wéy ba tey boo nee dugg boo nee jàkk ci kër gi dugg xam ne la xewoon démb ba tey moo fi ne kër gi àdduna soppeeku ko te yàlla bu mu ko soppi jamono ju yëngoo tam ak rëg-rëg yu bari itam dara soppiwu ko ci teewul moom nañ daa doxee ba fi sëñ la nekkee ba ginnaaw bi mu fi jógee ñi ko wut woon ñëpp itam loolay wéy ba tey te loola rek mooy dox kon mënees naa teg foofu suñ loxo tey jéggalu bu baax lu ci dëngu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ jërëjëfati leeral yi am na solo te fàttalee na lu baree bari it yal na yàlla dëgëral la te yàggal la ci sa ginnaaw yu kilifa te yàggal say kilifa ci ginnaaw seen kilifa gu baax gii fi nekkal Serigne Balla Fally ba li ñu yéenee la géeyal Serigne Balla Fally lépp ñu ànd kook moom ak murit yëpp ci barkeb Seexul Xaddim am nañ te loolu wax dëgg yàlla ni nga ko leerale rek sëriñ Balla bi mu jotee ndigal li di ko taxawul boppam noonu nga wax fukki at ak juróom yoo xam ne moo koy taxawul boppam ndax bi ko Serigne bi joxee ndigal li ba bi mu fi bàyyi ko mat na loolu te loolu lépp moo koy taxawul boppam ba ci at mi mu demee ci dat bi mu demee ni nga ko waxee fekk si Abdou Dieng Balla Fally nekk ci liggéey booba ndax booba magal na kon kon kon loolu rek day wane loolu te euh, at mi sëñ Tuubaa njëkkee màggale ni ko sëñ Moussa Ka waxee euh, léegi ci bayit woowu ñu leen waxoon ba ci bi mu fi bàyyi li ki sëñ Moussa Ka waxaat ci bi koy martial demam nga ca aama tan sa sin laa ko taarix di gaawu ci weeru tam xaritam ñu jaale ba weer wa ñu dellu fanaan ba ëllëg góor gën mes ila Touba ila ila Touba bi aali murid yey resrise ke rañani saket malaka ya xaro ruga malaka ya xaro ruga ridan warahma, wala cheikh bamba xaro ruga ridan warahma, warahma wa rahmatuhu wa ba ibra fali manam li mo bëgg wax rek moy at mim dama ko daan wax diko firil gone yi nga xamne duñ duñ bayyi xel waxi seigne moussa kadi bañu ba ba wéro xeye ñu delu fanan ba ëlëk ma leen dat bi ci gëna gaaw rek moy magaluk seigne moudi jeng balla fali moy moy moy moy lolu kon yàlla yàlla fayal ñu ko njaboot gi ko fi wuuti taxaw ci taxawaay boobu noonu nga ko wax Cheikh Abdou Karim Dieng Balla Fally bi fi sëñ Abdou yi nekk ñi daan ko taxaw sëñ Muudoog sëñ Fallu daan ko taxaw ànd ak ku mel ne sëñ Faama ak ñeen ki daan àndal ci jëwriñ yëpp ginnaaw bi bi ñu demee ba sëñ Karim nekk fii lépp nekk ci loxol sëñ Muudu mu di ko taxaw loolu moo sëñ Karim dañ cee nuroo ay defin bi mu demee ba tële moom sëñ Muudu noonu nga waxee ne ne la daan taxawoo bu yabalee njaboot gi sëriñ Balla ak Cheikh Moustapha ñoom ñii nekk ci seen ginnaaw taxaw takkuk der laxasaayu di leen xaar sëñ Karim dem na ba mënatuta sax mën naa ne wàccalal ba waaye day jékki-jékki li may wax Baye Cheikh man nag seer laaj ak deram takk ko ngir rek di wane ne liggéeyal suñ tuwaa du ko wàcc kon loolu waa kër suñ Balla Fally ñëpp dañoo nàmpatalu ci taalibe kon nag loolu ab soññee la war doon ci ko yaakaar sëriñ Balla Fally ñu delloo si waat sunum xel ci ak taalibe te xam ne lii fi sëriñ bàyyi li nga wax kër gi amutuk soppeeku lii fi nekkoon rek lañ war a jàpp te continuer ci ni nga waxee nag ren jii nag ñu ngi ciy gën a sant bu baax a baax ndax murid yi fi ñu toll nii fii jamono toll ku ko xam da xam ne wax dëgg yàlla xaw naa doy waar waaye teewut gis nga gàtt yi ni mel car macha allah andi nañu ay gàtt fédération bi ñu ngi leen di sant ñoom itam taxawaay bi ñu ci taxaw rafet na ci njiital Serigne Djili Gadiaga ak Serigne Bàcci Sall ak mboolem murid yi ñu ko àndal taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ñu ngi leen di sant te di gërëm te di leen ñaanal Serigne Khadim jërëjëf ñu ngi lay sant di sant mboolem njaboot Serigne Balla Fally gi ndax dañ koy wax rek sunub sag lañ nañ ñu ñun ñu yaakaar Serigne Balla Fally ndax li may faral di wax njaboot gi melokaan wu ñu mënoon a mel ñun murit yii ñoom képp lañ am ku leen tudd dañuy xeex kon nag sant nañ yàlla bi ñu yàlla dimbalee ci ñoom bañ ñu mel rek nañ war a mel teg seen tànk fañ ko war a teg sagal ñu wax dëgg yàlla sant nañ gërëm nañ kon xam naa sëñ Xaadim jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal dañuy jox Baye Cheikh Kunta jëwriñ su ko defee ci turu sëriñ bi mu yëkkati ay kàddu sant murid yi nga xam ne nag ñoo dajale addiye ji nga xam ne moo jom ci ki fi nekkal sëriñ Touba te mooy addiye joo xam ne ni ko waxee ba màggal gi tàmbalee la tàmbali woon ba nëgëni mustadak kon Baye Cheikh ci turu Cheikh Mouhamadoul Mourtada nga yëkkati ay rek sant murit yi su ko defee ñu daal di mën a ñaan. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. mbokki taalibe yi ñu ngi leen siyaar bu baax di leen baax yéen Seexul Xadim ci leeral gi wax ji jum jum na xocc leer na nañ waaw te dëggu na itam boole si jërëjëf yàlla moom doole xam bi te nangu ci te gën a dëggal taxawaay bi te féet la fépp parce que Seexul sagal nga lool te sigal nga nu yàlla suñu tuba taxaw ñuy siyaare mboolem taalibe yi dégg suñu kàddu ñu ngi ci réew yooyu bitim réew di leen wuyu si ñu seex moom mu ko ci taw bi ci taxawaay bu bi xam ne taxaw nañ ko ci ndigal lii moom joxe woon nag kàddoom soññee soññee bu leer boo xam ne ñëpp dégg na ko waaye daa mel ni ñoom doon soññee itam dégg na dégg nañ lu ñu lépp def nañ ko defe naa ko ci mbaar mi ba nekk xam ne ñu doon soññi dégg nañ soññe bi te lañ ci mën lépp def nañ ko di sant yàlla bu baax a baax nag waaw ci maanaam euh, jëfin wii ñu ko jëf waaw ndax jamono ji am na mu melokaan na mu ko waxe woon waaye teewut kenn ku ne xam na ne bàyyi nañ ko xel te lañ ci man lépp def na ko ci day nag wax dëgg yàlla ndax man jàpp naa ne maanaam yoonu murid lu ci gën a rëy bi sub sëñ ko waaw te defe naa sëñ Balla am na ci xam ne defe naa moom amoo ko ci waaw ndax moom la ko sëñ Tuubaa jëkk dugal ci am noppam soo ko wax ku koy wax booyee mu ko dugalee si noppam ba tey bii mosuñu see dalu ginnaaw mosuñu ko weefal mosuñu koo yeexe waaw doonte ba mu ko déggee ndigal li bañ jëfe ko ca at mooma am na ñoo xam ne maam wéeluñ ko woon waaye mosu see dalu ginnaaw moom te am na ci ay firnde yu leer yoo xam ne ay kilifa ko wax waxantu te ñu waxantu kon nag buñu demee ba tey jii maanaam ñu taxaw ci taxawaay bii jëf jëf ji nga xam ne ñëpp ngi jàkkaarloog moom loolu day woowee rek maanaam parce que ba suñ bàll fële amoon mi ngi si ak njabootam ba tey kon nag sëñ baa ngi sant mboolem taalibe yi képp koo xam ne maam tax sa mi ñaan suñu mi nga xam ne du jeexal dara te umpale wu dara te tële wu dara la nga gën a bëgg gën ko xem di ko te ko yaakaar di ko yóotu yàlla loo ragal mu boo gis barke sëñ Tuubaa waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaan su moom taw tawfeex ne ko at yu baree baree baree baree kon loo ci def ren rek yàlla ne asaka la ci def ñëw yàlla suñu baa gën a taxaw gën noo déggale gën noo boole musal nu ci seytaane ak lépp luy gàllankoore mënumaa wax nag te santu ma ñi nga xam ne ñoo taxu ci barab bii ban man fee toog di fi def lii ndax di bu gàtt ci ginnaaw kat buñ fi bañ fi am nañu fi wax fi ñëwee kenn xalaatu ne maam des na fi toog ci magal di fi waxtaan am ñu takk seenu laxasaay jël seenu ñaq di fi yandoo a fanaan ba di barab bi mel nii ba ku fi a bëgg a toog mën fee toog kon nag mënuma leen ñàkk jot sant goo xam ne gii il faut ma jot leen ko yàlla na suñu boobu di ay ndimbal loolu ne tawfeex waaw te gën noo defal ay ay wërsëg yaat yoo xam ne lépp loo xam ne suñu yittee rek yittee sëñ bee rek suñu ko déggee luñ ca man def ko ca waaw te lu waay jëf yàlla na ko nangul ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lu jëf ci barke borom Tuubaa sëñ moo amiin barke amiin amiin amiin amiin barke sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa waa kër Sëriñ Balla Fall kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen jaa jëfal jaajëfal te jëfal bu baax a baax seen bii nga xam ne mooy Dieng Saala TV nga xam ne seenu njabootu sëriñ Balla faali la nga xam ne mbooleem yitte yoo xam ne am na fii ci kër sëriñ Balla Fally mu taxaw ci taxawaay bi mu ci war a taxaw kon ñu ngi koy sant sëñ Modou di la gërëm te di la ñaanal ñaan suñu borom bi li nga bëgg ci liggéey bi nga am ci lu kawe sa njort barkeb Seexul Xadim kon ñi nga xamal mboolem murid yi ne seen bi moom seenu Serigne Balla Fally Dieng la na ko ñëpp bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatullah